ne euh, réew mi noonu lañ ko mën a daal di waxee. maamu mhm. euh, démb ba nga déggee audio yi. nan la de avant loolu sax Adji Sarr auditionné woon nañ ko euh, di ko laaj ci wàllu audio yi mu ne authentique la audio yi audio yu baax la mais nag da doon piégé ki nga xam ne moom mooy MC moo tax mu def ko nit ñi nag di samp ab laaj ne kuy piégé yow yaa war a enregistré wala ki ngay piégé moo war a <laughs> enregistré nekk daal loo xam ne lu doy waar la moom waaw euh, Ndeya comme si tu la bien dit. Euh, mhm. avant ñuy ñëw ci sorti audio yooyu noonu. Mhm. Euh, gis nañ ne que c'était le mardi. mardi waaye. moom la defoon face encore une fois face au doyen des juges. Mhm. donc je pense que ñi ngi ko doon poser ay questions. je pense que duré woon na sax presque une heure une heure de temps. Oh, merci waay donc on lui a posé des questions sur audio yooyu. elle a carrément dit que. c'est des audios authentiques exact donc euh, elle n'a pas démenti comme nuñ koy waxee aussi mm mais par contre man je me dis que yow man ak yow suñ doon wax mm-hmm. nga bëgg ma piéger yow yaa may njëkk enregistré xanaa tas affaire yi maa lay enregistré de duma la may ngeen waxtaan mm-hmm. <laughs> waxante ay wax ñu enregistré la ki la enregistré toog jàkkaarloo ak toute une nation jël ses responsabilité mm-hmm. wax ak peuple bi ne audio yi kat jox naa ko diw fii laa ko teg fii laa ko teg fii laa ko teg. Mm-hmm. xanaa kooku moo la piégé. il faut qu'il y ait je pense un peu de sérieux dans cette affaire. Mmh. c'est un dossier très complexe encore une fois. Ouais. je répète souvent mais vraiment dossier bi dafa jël beneen tournure. exact hier ñi ngi xool ci suñu débat bi. on n'a pas voulu trop s'exprimer ci ojo yi ngay wax ni mhm. mais bi ñu ko dégluwee vraiment on sent que c'est c'est c'est c'est une histoire vraiment désolante ndaa mhm. les Sénégalais sont fatigués avec toute cette histoire là ouais. lépp lu ñu doon tuumaal Ousmane Sonko mhm. amu ci nekku ci au bi nag peut-être que am na ñoo xam ne di amoon nañ benn réserve pour ouais. exprimer wu mais avec li ñu jot a dégg yépp ci seen discussion bi conversation boo xam ne te lii benn partie bi la parce que il y a ceux qui disent que am na leneen loo xam ne su génnee. sa mhm. va être euh, plus grave. te dafa mel ni audio bi rek moo génn mais am na yeneen ojo yu no am na yeneen ojo mm. mooy li ma la wax c'est sénégalais yi ak ñenn ñi amoon nañu benn réserve concernant cette situation mm -hmm. mais aujourd'hui je pense que les gens n'ont plus peur de s'exprimer sur ce dossier encore une fois mm mais nekk na loo xam ne doy na waar donc moom cela veut dire que depuis le début lépp luñ ko doon wa laaj muy wax c'est des mensonges mm-hmm. mais effectivement mm-hmm. c'est ça parce que su amee sañ-sañu mm-hmm. jàkkaarloo ak doyen des juges ne ko wax yi yiñ si wax nii man la kenn laa ko fi chinois kenn laa ko fi anglais ay olof yu leer naññ lañ fi làkk dañuy xam ne que kat mbir bi vraiment yaa waratul am débat sur ça au te ñoom dañoo jàpp ne ñoo pris en otage ki nga xam mooy Adji Sarr mais moo leen Euh, moo leen euh, prendre en otage d'après audio yi boo ko déggee nag Aliou Sall ngi naan leen su ma waxee seen nguur day daal di daanu mais man euh, ce qui euh, ce mat ce qui m'attriste sur cette situation mm-hmm. mooy que vraiment elle a été utilisée il faut le dire mmh. parce que ñi ngi doon wax ay affaire xaalis mais dafa mel ni am na loo xam ne ba tey jotagu ko Mhm. soo gisee mu naan sax des fois il faut que je les menace naan il faut que ma génn def ay révélation mhm. am na ay euh, paroles yoo xam ne moom ak MC waxante nañ ko MC mhm. posé na ko ay question mais effectivement peut-être lu ñu ko diggoon jotu ko mais par contre comme ni ma koy waxee Ndeya y a eu quatorze morts loolu moo metti ci affaire bi en fait quatorze morts yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci ay caaxaan ak policier bi ci kii woon la. 14 morts yoo xam ne ndax benn xale bu jigéen boo xam ne et a été entraîné. dans un dossier dans une situation boo xam ne tey jii bëgg na si génn parce que elle sortir. Mhm. sur ce cas là. wax yi mu wax dégg nañ ko. Mhm. y toujours une part de vérité. Ouais. dans toute chose. mais c'est vraiment triste encore une fois Sénégal di jànkoonteel genre problème yii nii ce dossier traîne depuis deux ans. Mmh. boobu ba tey y a des va des vient ñi ngi koy woo mu ñëw lu toll ni aji Sarr mu war a dem def face au doyen des juges. Mhm. ñu fexe ba camoufler ko ba ñu bëri sax yëguñu ko yëguñu ko waaye. démb ñu toog ay audio génn. Mhm. mais on est dans quel pays ñun fan lañ jëm. tey na que le juge encore une fois euh, prenne ses prenne ses responsabilités. Mm -hmm. normalement un DEA encore une fois waratul am débat. ci sujet bii nii. parce que li sénégalais yi waroon dégg dégg nañ ko. mais est-ce du sujet bi moom euh, feeñal na maanaam dossier bi est-ce que jeexalul boppam ba pare. d'après audio yeeg d'après euh, témoignage yi nga xam ne jot nañ ko cee gis est-ce que dossier bi jeexalul boppam ba pare. ndeya chaque chose à son temps. Mhm. Kébé mi ngi koy waxaat démb. nekk maanaam lu jot rek yomb. yomb waay fu mu nekk nii lépp mu ngi leer benn par benn. Mhm. moo tax ma ne la il faut faire très attention à c'est très important et aussi peut-être si benn côté avoir benn sens d'écoute bi mmh. c'est import c'est très important aussi aujourd'hui encore une fois démb émi audio yi génn na mhm. sénégalais jot nañ si dégg nañ ko mhm. waratul am débat ci côté boobu noonu mhm. juge bi na wax li mu war a wax après ñun ñu jàll ci leneen y a des choses plus importantes dans ce pays actuellement ndeyaa 2024 soreetul de c'est dans quelques mois foo essayer de sortir par la grande porte. Mais on voit tout ce qui se passe actuellement là euh, dans ce pays. lii ay caaxaan la. Mhm. parce que man mënuma comprendre que ci que ñu lay woo ngay dem. Mhm. indi la ci confrontation nga naan ay duma wax. Mhm. tey jii suñ la su su fekkee yow yaa jàkkaarloo doyen des juges bi rek su la posé question. nga tontu ko nga ñëw confrontation ñu lay laaj ay question nga naan ay non je vais pas répondre à vos questions ndax yow waa Pastef nga ay affaire de caaxaan la. te je te am na démb koo xam ne woote na. Mhm. cette fille là a bousillé sa vie Adji Sarr te fu mu nekk nii peut-être mënagul xam conséquences yi. xam nga fan la koy xame dossier bi yegg fi mu war a yegg. mbir bi jeex après mu xool ndax dina amaat vie. xoolal nañ ko bañ a sax jàpp ñu yóbbu ko Chine elle n'aura pas de vie parce que turu Adji Sarr dootul deñati ci ci histoire ci histoire Sénégal je parle voilà. du Sénégal mais partout dans partout, le monde ouais. les gens ils sont fatigués. imagine sénégalais bu woote ne non ñun diñu dinañ fayul suñu bopp et ce qui s'est passé hier. Mm-hmm. quand les gens réagissaient. parce que perte ñii perte nañu seen ay frères. ñii perte nañu seen ay pap yaay yi perte nañu seen ay doom désespoir ñoo xam ne ñoom ñoo yoroon seen ay famille. ak dégâts ak dégâts matériels yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko nit ñaata nit moom lañ dàkk si seen ay service ndax problème bii nii. ñaata nit ak ak ak ci ñàkkoon. mais ki ñu yàkkoon yàqoon otoom tamit ci ci ci manifestation non mais c'est pire débat bi passé na foofu noonu. Mhm. ndax lan problème boo xam ne. deux citoyens non. qui a été monté de toutes parts. Mm aujourd'hui résultat bi ni moom lañ ci am ce pays ne mérite pas ça au mhm. encore une fois que les dirigeants de ce pays se redressent Ndeya. Mhm. Sénégal ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko mën a defar. aujourd'hui ñu bëri dañ ñu nawoon. parce que mhm. ñëpp dañ doon wax le Sénégal et un pays de démocratie. mais aujourd'hui on voit que tout est bafoué la liberté de la presse est bafouée. opposant bu wax nga jël jàpp tëj. détenu politique mais ñaata nit ñoom lañ jàpp boo xam ne amul benn raison Abdou Karim Gueye ki fay lan léegi presque trois mois ñu jàpp ko sur quelle raison Cheikh Omar ak yeneen ak yeneen Pape Alé Niang mais on est dans quel pays léegi nag quand tu vois toutes ces choses là qui se déroulent dans ce pays mm-hmm. moo lay wan ne que ñii nii soit am na lu ñuy waaj wala pare guñu pour bàyyi. mais bala ngaa daaneel foofu noonu may ñëw ci Kébé dama daan dégg à chaque fois nga ne euh, am nga confiance di justice Sénégal te gis nga euh, ni muy doxee jamono jii nii est-ce que da ngay garder même euh, parole yi nga xam ne da ko doon wax wala am na loo xam ne danga koy laam-laame ci kii. di rafetlu encore une fois. Mhm. question bi Ndeya. waaw mais dama bëgg nga déglu ma attentivement. ok la liberté de la presse encore une fois est bafouée cette justice n'est pas équitable. Abdou Fall démb daf fi souligner ay points. di mhm. def ay rétro. Mhm. il effectivement raison. Mhm. il faut le souligner des fois duñ ko teg ci yoon. 14 morts y a pas d'enquête teguñu ko ci yoon. Adji Sarr un dossier qui traîne depuis deux ans ba tey dafa bëgg a yàgg. te bu waxee li suba wax leen la balance n'est pas équitable. nañ ñu dimbali ngir yàlla sur ce dossier la encore une fois. redresser balance bi. juge def li mu war a def au moins sénégalais xam ne kat ak lu mu metti metti metti am na dëkk boo xam ne suñ fa tollee ak lu dossier bi critique critique am na koo xam ne dina jël ay responsabilité génn dëgg bi man mhm. foofu laay waxee ok ouais. c'est juste ça Ndeya mhm. mi ngi noonu euh, mi ngi noonu nag mu nekk lu am solo macha allah euh, Kébé nan nga jàngatee audio yi nga xam ne démb gis nga ko à travers euh, ci réseaux sociaux yi waaw audio yi moom mënatuñ cee wax lu bees dañoo sax ñun sonn lii dañu mujjee fàtt pas vraiment parce que à chaque fois ñu lay obligé ngay xëy di wax ci lii nii parce que bés bu jot ñu voilà ñu génnee ci lu bees ba yow à mhm. chaque fois da ngay tourner di delluwaat ak ginnaaw di wax yoo xam ni wax nga ko waxati ko waxati ko c'est ça quoi parce que mhm. audio yi nit ñi dañ ci jot nii rek mais avant nit ñi di ci jot mais xamoon nañ bu yàgg li ci nekk xam nañ bu yàgg la moo nekk ci audio yi kon mhm. tey jii dañ ko génnee rek am ñoo xam ni ñu ngi koy soogay déglu mais xamoon nañ bu yàgg-yàggal moo nekk ci audio yi kon instant bi xam ma lan mooy wax ji pour man mhm. nekkatul naan audio fii sangam-sangam xam nga lan mooy wax ji mhm. maa le ma xam Diallo ci boppam na tëj dossier bi def nos lieux immédiatement loolu moom mooy dëgg bu ko defee ñu poursuivre les comploteurs comme ni ñu ko waxee à chaque ñi nga xam ni ñoom ñoo ne ci ginnaaw caaxaan yi ba fukki bakkan ak ñeenti rot ci mhm. ay ay frère ay soutien de famille dañ ci dañ ci dañ ci ñàkk seen bakkan am mhm. ay ay ay ñoo xamante ni si ni seen i doom yaakaar lañ woon ci ñoom ñu ñàkk ñi seen ay bakkan encore une fois kon instant bii ni léegi fii di layam-layam yi ci dossier yi loolu jaratu ko pour ci mhm. xam audio nangam sangam audio yi nit ñi déglu nañ ko xam nañ li ci nekk li xam nañ ne lii nii ay tappalay neen kese la sortie bi docteur Alfousseyni Gaye aussi tamit def dikk gën leen dugal loolu moom mooy dëgg kon instant bi jamono ji ne xam nga lan mooy wax ji nañu tëj mbir mi te nag xam nañ ñëpp xam na ne lii ay tàppale la. Mhm. kenn du woote nag naan na Sénégalais yi génn parce que loolu euh, mën nañ la ci topp. mais mhm. liy dëgg mooy puisque ñoom ñoo yore yoon. te ñoom lañuy doxal yoon dañuy réew mi dafa nekk réew boo xam ne kenn du fajal sa bopp mhm. nañu nañu nañu nañu bàyyi seen caaxaan yi te te tëj mbir bi te xam ne lii dara nekku ci ay tappale kese moom moo ci mhm. nekk ñu poursuivre euh, léegi ñi nga xam ne euh, ay assassin laa leen mën a jàppe parce que tey ji mhm. euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo tëgg lii nii tey ba fukki bakkan ak ñeenti rot ci ñoom ñoom ñoo responsable loolu ñooñu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo dóor nit ñi ay bal ñu dee loolu la ñu war a liggéenti jamono jii nii instant bi ay teesu complot ay xam nga viol loolu départ dépassé nañ ko. depuis mhm. jamonoy maam ya. dépassé nañ ko bu yàgg xam ci lañ lay nekk fi ne nii. Mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gannaaw lii nag ñu poursuivre leen parce que ñoom seen place nekkatul toog ci ay saala kii ci oto yi am clim mais dañ leen war a yóbbu ndungu seen tëj leen foofu noonu ñu fay. askanu Sénégal société sénégalaise li nga xam ni tey jii nii moom lañ leen teg parce que dañ leen mhm. teg naqar bu méttee métti mais imaginez yow tey jii nii jëlale naa ñi ci ñàkk seen bakkan ñooñu moom c' est extrêmement grave mais imaginez ñi nga xam ni seen ay teraanga tey jii yéen amoon yàqu na ci ñi yàq nañ ci seen i oto ñi toj seen i magasin ñi seen ay loxo imaginez tey jii ñooñu ñooñu ñëpp nga teg naqar bi nii ci loo xamante ni si nii lu dul ay kàcc kese kese kese ay kàcc ay fen ñu baar ma ci terme bi dañuy ay yoo xamante ni si nii parce parce que ñoom euh, sàcc nañ ay milliards yoo xamante ni si tey sa ñoom continuer ci loolu noonu mm-hmm. euh, teraanga boobu noonu ñu gis ni am na goo xam ne menace la pour ñoom bis bu dikkee lépp luñ sàccoon danañ ko goxi mais ñu bëgg nuñ ko éliminer jéem ñu ko éliminer politiquement jéem a xeex ak moom bu ñu demee dóor ko ci urne ou mais dañuy xool ay tàppale yoo xamante ni sos yoo xamante ni si ni tey jii nii ba mu jural askan bi tey jii fukki bakkan ak ñeent mais c'est extrêmement grave te fukki bakkan ak ñeent yooyu noonu mais xoolal après li toppaat ci seen ginnaaw maanaam événement bi dañ ko yemale rek ci marché bi mais après am na benn yu bare bare yeneen yu ci toppaat yoo xamante ne si nii loolu moo yooyu yooyu moom moo euh, mais do dossier Sonko Adji Sarr moom moo ko moom moo ko waral léegi nag tey jii nii audio yi léegi génn na Sénégal yëpp kenn ku ne déggal nga sa bopp mhm. tey jii moom képp ku doon laam-laam yi ak layam-layam yi tey déggal nga sa bopp aji Raby Sarr ci boppam moo wax ci gémmiñam que nii mm. ay fen ay fen kese la nekk ak i tapale ak i kàcc kese ci la nekk depuis deux ans depuis ñaari at ci ay fen ak i kàcc la nekk ba mu jural askanu Sénégal li nga xam ni moom moom moo moo leen dalal tey mais man Kébé Kébé li ma jaaxal mooy que Adji saar moom bu taxawee doyen des juges ci biiri bët sax da koy wax loo xam ne amul euh, te bu déggante ki nga xam ne xaw moo tax bu ma xam doyen des justes ñun daf ñuy yàpp ñun ñun ci boppam te nit ki wax boo xoolee bët di nga xam ne kii li muy wax moom boppam laa wax moom daf man pour man dafay yàpp sénégalais yi xam xama xam xamal ma parce que boo xoolee tey jii nii il faut que il faut que ñu waxante dëgg loolu moom mooy dëgg parce que tey jii il a suffisamment de preuves sa table pour mettre fin à ce à ce dossier loolu moom mooy dëgg dossier bi ci boppam man mii sax man mii nga xamante ne si man mii su ma ko yoon tey jii nii atte naa mbir mi bu yàgg ah, kon tey moom ko woon ca njëlbéen nga que wóoluwu ko ngir mu atte dossier parce que moom dafa teeloon a far parce que dafa publié woon page Facebook voilà di dugal Ousmane Sonko kon kooku tey jii nii histoire tey jii bu mu bu mu may ay noonam lu ñu reetaane parce que Ousmane Sonko teeloon teeloon na artu sénégalais ci mbir mi kon tey bi bu ñu dikkee ba agsi fii nii nga xamante ni si nii mbir mi vraiment waroon nañu ko euh, waroon nañu dépassé fii bu yàgg fi mu ne nii pour man ci li ñu waroon a nekk mooy ñi ñi ñi nekk ci ginnaaw complot bi instant bii nii war ñi ngi leen ñi ngi sàkku ci ñoom ñaar fukki atu kasoog euh, vingt cinq ans de prison ferme loolu lañ doon xaar ci ñoom parce que ay ay bak ay bakkan la ñu rey ay bakkan gis nga ñi ñu fiy tëj vingt ans de prison ferme ñii gënuñu leen nañu waxante dëgg mhm. ñii gënuñu leen ndey gënuñu leen bàyyi gënuñu leen nekk moom moomuñu nit ñi il faut que ñu il faut qu'il commence à il faut qu'il apprenne à respecter les gens loolu moom mooy mhm. dëgg kon euh, instant bii nii loolu moom moo moom la ñu war a def bu bëggee luñ liggéey rek parce que ñun jamono ji mhm. vraiment tey jii xoolal euh, fële Sabodala la la fa nekk di xew mais ñun amoon nañ lu ñu mën a wax ñuy ay dëkk ay nit ñuy taal seen kër tey jii télévision yi loolu la ñu waroon a médiatiser wan ko askan xam la fay xew mais obligé na nit ñi ko tey jii nii fi mu ne nii ñuy nekk di wax ay tout tout le temps Adji Sarr Adji Sarr Adji Sarr léegi sax hmm. déggutoo Sonko mais Adji Sarr ngay wax ak ak ñi nga xam ne fi mu ne nii ses tontos sans ça yi nga xam ni bëgg nañ seetal seen der parce que nag ndaw si daf leen a tout mal hmm. loolu moom mooy dëgg te boo xoolee ci audio yi mi ngi leen di saaga boo xoolee boo xoolee Maître El Hadji Diouf hmm. bi mu toogee yow yow Cheikh Bara Ndiaye mun a fi toog ni teel a wax teel la araftu li ne la su ndaw si mi ngi lay tuumaal yow nga toog faram fàccee naan xoolal ndaw si dafa mool de mën na tax ku góor gu mënul téye boppam man a mën a mën a mën a kii xam bu xaw waxi dof yooyu ñoom buñ digee ñoom buñ digee dañu yaakaar ni ñoom ñoo muus ñoom ñoo yeew alors que ñoom ñoo gën a dof ci àdduna bi mm-hmm. nañu may nit ñi jàmm te fi mu ne nii xoolal nañu xam ne. Mhm. Sénégal boo woon Sénégal boo woon dafa won ni. Mhm. nañu may nit ñi jàmm moomatuñu nit ñi te mënatuñu fee xoxatal kenn docteur xam naa daan ci ñëw docteur Alfousseyni Gaye mi ñuy jël à fois di topp nañu ko bàyyi. parce que mhm. dafa def liggéeyam kese. nañu may nit ñi jàmm c'est ça. kooku dañu ñëw ci moom ci docteur ñu des ñu xaw a des ci audio yi. encore fois gis nga fu mu nekk nii. Euh, pour la stabilité de ce pays. mënuñu jàll si leneen tant que réglé wuñu situation bii nii. il faut le dire Ndeya. on peut pas à autre chose tant que réglé wuñu lii parce que lu ñuy gën di dem mhm. suñ ko réglé wul après dafay ñëwaat day def autour de débat mhm. gis nga ak li génn démb encore une fois mhm. euh, am na koo xam ne nee na ces audios apporter plus de clarification ok ok ok am na loo xam ne ñeme ko woon wax mais avant ñenn ñi di jot ci audio yi am na ñoo xam ne jot nañ si merci beaucoup et encore une fois il faut rappeler que li MC Niass wax ci discours bi nga xam ne mi ngi ko doon def. Mhm. am na loo xam ne des na lii am na lu des de ndeya. am na lu des non il faut le dire. Mhm. encore une fois gis nga audio yi. Mhm. dina tax ku mënul woon wax wax dina tax ku mënul woon jëf jëf. jëf il faut le reconnaître aussi encore une fois non voilà ñëwal gis nga waratul am débat autour de ça. vraiment parce que ki nga xam ne depuis le début ñu ngi koy interroger. mu am sañ-sañu jàkkaarloo ak doyen des juges bi <laughs> ne li ma doon wax yépp ay fen la mais xoolal warul woon sax ñibbi dans les normes parce que bu ñu xalaatee 14 mois di nga xam ne am nañ ko ci am na loo xam ne yoon waroon na def liggéey bi liggéeyam foofu noonu c'est plus que ça mmh. peut-être yi moom moo gën a flagrant mhm. mais am na si ñoo xam ne ils ont perdu leur mais xam nga bakkan bakkan dafa foor moo tax mais loolu laa lay wax Ndeya mhm. mais ñaata nit y u eu combien de dommages dans cette histoire la bëri na de. mais dañ waxante dëgg. Mhm. événement yooyu noonu ñaata jour la nit yi toog liggéeyuñu. surtout ñu nekk tu t'imagines vendredi noir il ne faut pas sortir risque de ça risque de ça léegi ki nga xam ne moom il est obligé génn pour dem lijjanti ñëw dundal waa këram ce jour là il n'était pas sorti jamonoy couvre-feu en plus vingt nga teg problème boobu noonu ci kaw sénégalais bi mais on voyait les manifestants jusqu'à une certaine heure mm-hmm. mais ngir yàlla on est dans quel pays gis nga c'est vraiment désolant de voir cette chose la il devait plus y avoir de débat sur ce cas mm-hmm. parce que tamit quoi qu'on puisse dire la justice c'est la justice il y a les lois et les règlements mais droit am na loo xam ne wax na ko ci mensonge am na loo xam ne wax na ko ci fan mais yow nga jàkkaarloog juge bi ne ko carrément li ma doon wax yëpp ay fen la. mais war nañu am débat vraiment euh, dama doon piéger sama sëriñ. Euh, piéger pour lan pour xool ba xam euh, il est fiable ou pas. ndeyaan na loolu yéen ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak yow ñoom ñoo lay protéger. ci les protèges en les insultants mhm. ah. Adji Sarr elle a insulté. ñi koy protéger c' est dans les audios. daf mhm. leen saaga mënuñu si jaaraat mais elle les a ma pare man ki ñu ciy wooyee le mec. non man moo ma jaaxal. fii amatul ay le mec ak ay ADD il faut dire les choses xam nga telles qu'elles fii mhm. dara mënatu fi nëbbalu encore une fois. je me suis jamais exprimé. Mhm. comme ça yow loolu xam nga ko. Mhm. mais dafa am loo xam ne dafa leer encore une fois. c'est flagrant. c'est flagrant c'est désolant. Mmh. a des gens qui ont appelé ici. di jooy dina xarlu mais tu t'imagines un Sénégalais qui parle avec le kër ne carrément ñun dinañ fayu. non man démb ba ma gisee benn commentaire am ku ne man li ma ci ñàkk sama cousin moom moo metti jamono ji. kon dana leer am na ñoo xam ne jamono ji ñu ngi ñu ngi souffrir en désespoir ay ndaw yoo xam ne quoi qu'on puisse dire dañu amoon jom am xëy di dem di liggéey des jeunes tués dans des garages ndeya ay ñoo xam ne manifesté wuñu manifesté waatuñu ñu rey leen des policiers ki prennent des armes à balles réelles image yi di ko wane ngay rey ay nit 14 moor y' a pas mais nag juge bi wax li mu war a wax ñu jàll si leneen au fait les fautifs dans cette situation ñu woo leen kenn par kenn. Mhm. mais def lu ñu war a def. Sénégalais yi sonn nañ lool sax ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko euh, mu nekk am ay révélation yoo xam daal dina génnaat euh, jukkee ci audio yi nga xam ne Adji Sarr daal dina expliqué li ni di wax ne euh, complot la lépp loo xam ne wax na ko ci mbir mi de jàpp leen ni ay mensonge la. mais Ndeya. Mhm. est-ce que doo ma def est-ce que doo ma def comme ni ma ñeneen yi def. nan la tu te la ñuy piéger nit. est que doo ma def est-ce que doo ma nax. ah comme ni <laughs> mais tu te rends compte. bien une personne. est-ce que doo ma nax wax nga dëgg de ci. wax euh, est-ce que doo ma nax comme ñeneen ñi mun nañ ko déedéet. trop de mensonges. <laughs> man j'ai honte gis ay des blancs qui appellent. naan leen bàyyi leen pute lañ ma jàppee. mais xamuñu ma non pas ay pute sax ma jéggal ci kàddu gi non moo ko wax. mais tey jii nit su la doon protéger. Mhm. di la jox nga lekk di la jox nga naan yor la. Mhm. ak looy piéger nit. Mhm. am na ay kàddu yoo xam ne doo ko teg. seen kaw non non nañu waxante dëgg dégluwaatal audio yi bu bu baax. y a des coupures y a des coupures. MC Niass su su waxee ba pare on dirait que sax du benn appel te tamit quoi qu'on puisse dire elle dans le luxe hein. Ouais. elle dans le luxe cette fille là. Mm-hmm. te en plus moom moo ëpp sécurité ci euh, réew mi am na keneen koo xam ne tamit euh, docteur la. mais elle est protégée. exact elle est protégée. Mmh. ndax buy dem fenn ay garde corps lay daal di. bien sûr. mais bien sûr y' a pas plus flagrant que ça encore une fois Ndeya. Mhm. aujourd'hui am na ñoo xam ne dañu amoon réserve concernant ce dossier. Mhm. am na ku koy wax ci commentaire yi. nee na mhm. Kébé et compagnie je vous salue. je pense les audios vont apporter plus de clarification à la chose nee na seuls les hypocrites continueront à pas croire à ça. mais il a effectivement raison xam nga xam nga xam nga mbir mi maanaam. bu ñu génnee ci wàllum rey yeeg